Votre bulletin d'information communale, BIC. auzubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahim di wax ni alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ginnaaw bi sante yalla yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Khadim Rasul sant suñu wajur mu mel ni ñu ngi nuyu mbokk ñëpp di ziar ñëpp euh, am lu nu war a lu ndaw rek lu bariwul. loo xam ne li ñu tax a jóg mooy fii ñu taxaw tey euh, di kër président Moustapha Fall ñu ñëw fii ci turu mouvement lëngoo defar yëmbal ñu wax ko réseau d'appui pour le développement de yëmbal Nord moo tax ñu yëkk suñu kàddu xam ne kàddu gi sax lott nañ ci lool di ci wax ndax ñoo ci gën a tuuti bu ko defee dañuy jotal ñëpp kàddu gi rek di wax ne dafa am lu ñuy jàllale ñu jëm ci événement boo xam ni événement social la événement bu nuy wax tabaski nga xam ne génn nañ fi benn événement muy koor ñu def ci ay gestes mais mu am beneen geste bu noble bu fi am ñu toog war ko jàllale ci turu lëngoo defar yëmbal li tax ñu jóg rek di ko jàllale vraiment mooy li nga xam ne jub nañ ko muy tabaski kenn ku ne xam na ne am na lu fi jaaroon muy koor gi ba ci korite gi mu mel ni ci koor gi defoon nañ geste yu rafet muy séddale ko suukaru koor joxe tandarma joxe ceeb bi démé ba tollu ci korité yalla mi dara tawul président ak xelam mu rafet ak yàgg dox ci social dem wut ay nagam jox ko doomu adama yi nga xamni ño nek ci euh, réseau bi di euh, lëngoo defar yëmbal ñu tuddee ko lëngoo euh, mu nek réseau bo xamni dal ni mouvement réseau d'appui pour le développement de yembal nord vraiment lot ci cadre yi trop toog ak suñu jigen ñi yàlla dogal kii nekk ci sama wet euh, di Mati Laay euh, nekk koo xam ni moom lañ jox tey wàllu euh, trésorier bi nekk ak sama membre yu baax yi nga xam ne vraiment ñoom it lu nekk rek ñoo ko ca muy lëngoo nag parce que li ma leen nii suñ kàddu moo ci gën a ndaw ndax wax sax tey danoo jomboon ñu koy def waaye buñ la nee yaa war a wax waxal da nga dul xam noo def bu ko defee dafa am lu jëpp muy tabaski kii nga xam ne yàlla dogal na mu ne ci bopp bi di président Moustapha Fall génn ay moyenam lu toll ni 7 tonnes 500 soble bolé ci motard bolé moutarde boole pombiteer euh euh, euh num tuddati vinaigre motard outil yooyu yëpp nga xamni ñu ngi jëm ci soxla ko ci événement bi mu yëkëti ko ci ay moyens bopam génne ko joxe ko kooku vraiment dañ koy sante diko gëna ñaanal yalla gën ko ko manal c'est parce que amna ñu ko manté defuñu ko bo gisee geste bi rafet moy ñi ko mënte defuñu ko moo mu koy def en tant que jullit développer lu toll nii ci poosam génn ko war koo jox mbokki yëmbal war koo jox mbokki membre am kon gest bu rafet la mu mel ni nag am nañu ko dikk waaye ni ko dig gisaguñ leen muy suñu mbokk autorités yi fi nekk ñu leen di nuy au passage commencé ki nga xam ne yàlla dogal na tey lépp ci bopp bi la commencé muy ki fi nekkal président Macky sal ba ci ki ci gën a ndaw kon il est temps que président Moustapha Fall ñu jàppale ko que ci lii muy def ndax moom seul moom kese cote donc moo génn lu toll ni budget bi jox ko askanu yëmbal kon président vraiment gàcce ngalaama président mention spéciale Moustapha Fall ak turu lëngoo yëpp parce que c'est lëngoo c'est lëngoo kenn rek mënul dara ñaan mënul dara bu ko defee vraiment ñu ngi soññi ñëpp di jotal ñëpp coññee gi képp koo xam ne jóg pour mën a jàppale askanu yëmbal rek ñu ngi lay xaar parce que lii geste bu noble la kenn ku ne xam na ni yombul jamono juñ toll ak fi réew mi toll ci jamono juñ jóge muy Covid ak leneen ak leneen ak jamono jii fi xew nga xam ni coow yi bari na liggéey amul kii moom mën a génne fond bu toll ni 4 million jàpp cinq million def ko soble pombiteer ak outil yi jëm ci wàllu cin kon kooku dañ koy jaajëfal di ko gën a sant di ko gën a gërëm vraiment ndax vraiment no ndawul geste bu rëy la bu ko defee vraiment ñu ngi wàcce kàddu gi di soññ ñëpp ñu ngi wàcce kaddu gi di soññ képp ku man te man koo jàppale ñu ngi lay woo sa lëngoo li tax mu jógit ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que bi ñu koy def danoo jóge ci jamonoy campagne locale ñu bañ a tasaatoo war a bokk ndey bokk bàyyi ànd defar yëmbal moo tax ñu sos lëngoo muy réseau d'appui pour le développement da yëmbal nord bu ko defee vraiment ñu ngi soññ askan di remercier sama mbokk membre yépp wax dëgg yàlla ku lim juum munu fee nekk di ay tur waaye ñu ngi loxo encore mboolem ku te nga gis profil ci média bi vraiment ñu ngi lay talal loxo nga ñëw jàppale lëngoo defar yëmbal parce que soxla nan ko soxla nan ko qui que ce soit bu nu waxee bu waxul soxla président Moustapha Fall parce que sonn soxla nañ ku accompagner euh, lëngoo defar yëmbal parce que kenn rek di génne ay moyenam di ko joxe dafa métti te jamono jii kenn ku ne xam na ni say mbokki bopp rek dooy na la waaye nga bëgg cee boole àdduna bëgg cee boole ñëpp kon loolu métti na ñu ngi interpellé te ñëpp pour ñu ñëw jàppale président Moustapha Fall ci social bi muy def ci gox bi ci àdd bi muy def jiital ci ñëpp nag dama ne président Macky Sall ba ci ci gën a ndaw ci moom ak mboolem oppos opposant yi ñu ngi leen di woo Nous avons jàppale réseau d'appui pour le développement de Yeumbeul Nord. bu ko defee dit ngi sama di suis di nuyu Vous avez lim waaye su ma président Moustapha Fall rek tudd naa ñëpp yóbbaale dit lëngoo gépp kon maa ngi wàcc kàddu jox Mati Laay vraiment mu am lu mu ci ndax parité lañ wax dañu góor ni jigéen te mënuñoo wax tënk lépp te joxuñu suñu soxna mu nekk grande dame ku ku social ku actif parce que wax dëgg yàlla li mu boot ci ginnaawam waxuma la ko ci ci mbootaay ci membre waaye li mu yor ci ay responsabilité ak ay ndombay tànk rek tëddul nelaw amatul njariñu këram ndax lëngoo kon mati mention spéciale parce que man la sëñ Abdoulaye waxoon rek laay wax du ma sant ku deful dara cey la mu am cey la mu daj c'est la travail kii paye bu ko defee mention spéciale na ñëpp ñëw jàppale la ci li ngay liggéey parce que soxna nga rakk nga mais accompagné nga nu gunge nga ñu mat nga présidente mat nga lépp lin la fal mérito nga ko kon gàcce ngalaama bu ko defé ñu ngi lay jox nga jallale lo ci mëna jallale jàllale yow it di tëjaat dal kep ku may dégg dans le monde entier diaspora bi aduna yëpp ah, ah, dialogue islamo-chrétien parce que mouvement bi lool lay dund dialogue lo islamo-chrétien nit ñëpp ñëw jàppale lëngoo defar yëmbal buñ ko mëne wax ci nasaraan donte jangul nak ñu wax ni réseau dañ ni mouvement la réseau d'appui pour le développement de yëmbal nord pour mu leer ñëpp ñëw jàpp ci qui que ce soit opposant qui que ce soit pouvoir ñëpp leen woo bu ko defee ñu ngi wàcce suñu kaddu di wax ne wasalaam bisimilah mati asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp du nuyu waa réseau mouvement defar yëmbal ñu tuddee ko longoo defar yëmbal di gërëm na ñi fi teew ñëpp mag ñeeg ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ndax réseau bi bi mu tijjeekoo tamit ñoom ñëpp ñoo ko bëgg def ci seen doole seen fulla ak seen fayda mais tey gërëm bi dañuy gërëm président Moustapha Fadel Fall ndax tamit li fi am lépp tey moom la yëmbal dëgg la dañoo sonn muy mag di ndaw di góor di jigéen ñëpp a sonn sunu jeunes yi fi nekk amuñu liggéey amuñu dara borom kër yi tamit seen loxo jotatul seen ginnaaw yàlla wërsëgal ko ci xéewal bi ko yàlla may mu ne du ko lekk moom dong dina ko bokk ak askanam ba fi dooleem yem génne woon tamit lu mat ci xaalis 5 millions jox ñu ñu dem jëndee ji ko soble ak moutarde ak ñoom ñëpp pour ñu séddale ko waa yëmbal gi yëpp ñu ko ci sant di ko ci gërëm ndax comme li suñu jëwriñ bi wax rek joxe yombul mais ku ko yàlla may tamit ba nga mën ko def ñu santoo ko yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla tamit ñu ko mën a dimbali ta mun ko jàppale ñu ñëw jàppale ko ndax ni mu ko waxoon rek nee na leen man bërigo laa mbattan laa xooma buux mu dem buuxul mu dem dañ leen di ñaan rek ñu ñëw buux ko ndax ñu ànd ak moom ñu dem ndax loo ngoo moom day dem buñ ci jàppee dina dem buñ ci jàppul dina dem mais dañ leen di ñaan rek ñu ñëw jàpp ci ñoom ñëpp ñu suqali yëmbal ndax ñu tamit yëmbal kese lan am waa di nuyu tamit sama jigéen ñi ñoom ñëpp ay jàmbaar lan waa nuy naa leen yéen ñëpp dama mënul wax nag tey waaw wasalaama